wax ji nag ci gàttal monsieur le ministre ndaxte nee naa sànq li ñu waroon wax yow waxoon nañ ko ci ministère de la culture ba ñëw nañu ñu ngi tàllal loxo ñëpp xam nañu ne secteur sport am na lu fi jot a jàll am na lu ñu fi jot a def te yëf yi tamit des na chantier yaa ngi fi ni ñu fi war a action yaa ngi fi des na ñu ngi tàllal loxo ñëpp lëpp la ñu xamante ne dinañ ko fi tegi nañ koy defi dans le cadre d'une concertation dinañ fi instaurer benn dynamique de concertation ak acteurs yëpp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 foofu musée ba kii lañ fa fekk le actuel le champion olympique le seul médaille olympique d'ailleurs mhm. de l'histoire du Sénégal et nous espérons que nous en aurons peut-être au prochain JO de moom lañ fa fekk moom mooy wane ne ak euh, l'ancien international de football El Hadj Diouf mooy wane ne que sport mun na yóbbu tuuru réew fi nga xamante ne xëy na économie du fa àgg ak euh, ak politique du fa àgg sport maanaam léegi dafa nekk benn instrument diplomatique sport bi itamit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

Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Félicitations. Félicitations. Yàlla yàlla gën a jàppale. Président Diagne. Félicitations. Merci. Président Diagne dafa voyage. Ok. Merci. Ah.